Khalifa Ababacar Ndiaye ñu ngi leen di la dalal. ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. ngay secrétaire général national association enseignants d'éducation physique ñu gis ne examen yi euh, jot na le premier mais nag da ngeen bank seen loxo ñu bëggoon a xam un peu ndax yéen ñëpp a ko respecté. dañoo bank suñu loxo ginnaaw bi ñu tënkoo ci biir association nationale des enseignants d'éducation physique et sportive. Mm-hmm. daal di lëkkaloo nag ak G2 CUSEMS ak SAEMS ñu wax ne nañu bank suñu loxo ci lépp jàng ak jàngale mm. ci lépp lu jëm ci cellule pédagogique ak lépp lu laal ci wàllu examen mm-hmm. euh, loolu nag euh, dañ ci gën a dëggal suñu bopp di firndeel sénégalais yi ñuy déglu que ni Sénégal wërngal këpp amul lu dul ñaari centre d'examen yu doon jéem a taxawal bac bi muy waa lycée Charles de Gaulle bu Saint-Louis ak lycée bu Diofior mhm. ginnaaw loolu moom mun nañ wax ne à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour Sénégal yëpp a taxaw tey bac EPS bi nga xamante ne office du bac mu ngi ko doon jéem a tëral doxul fenn ci biir réew mi te bu soobee yàlla noonu lay demee suba ak ginnaaw suba. yéen seen association bi ñaata euh, enseignant ñoo ci nekk justement. ñun ñu ngi toll ci lim bu ñuy wax euh, trois mille quatre cent cinquante et un ci biir ñooñu nag dañ ciy daal di génn ñi ñuy wax les maîtres d'éducation physique ñu toll ci lim boo xamante ni ñu toll ci deux mille quatre cent cinquante et un mhm. ginnaaw buñ ci boolee ñi nga xam ne CNEPS formé na leen te ñu nekk ay professeurs contractuels depuis huit ans ñu war leen sotti dans le corps des professeurs de collège ñooñu ñu ngi toll ci lim bu ñuy wax deux mille euh, plutôt deux cent soixante six. d'accord kon ñooñu ñëpp tey mën nañoo jàpp ne bank nañ seen yoxo euh, di amaluñu examen épreuve physique yi. Euh, dama ne ñëpp banque seen yoxo. mais dégg nañu dégg nañ ci ay écho ni am na yenn école yi nga xam ne bu weesoo ñaar yi nga tudd ci ay école privée am na épreuve yi. waaw xam nga boo école privée rek da leen di daal di beddi ci biir système éducatif bi alors que système éducatif loolu école rek la ñu xam. Mhm. école privé du def bagu boppam école publique def bagu boppam benn bag rek moo am mm. li leer tey mooy centre d'examen yi nekk Sénégal yëpp ñaar yooyu ma la tuddal ñoo doon jéem a forcé taxawal bac EPS bi te li leer tamit mooy yëg nañ ci lu yàggul dara ci suñu point fopo yi nekk ci ñaari dëkk yooyu ma tudd Diofior ak euh, Saint-Louis que ni dix heures bi mu jotee tey moo d'ordre bi dafa wax ñu def débrayage dix heures bi mu jotee suñu yeneen jàngalekat yi ba ñu wàccee dix heures ñëw nañu arrêté Euh, ñëw nañu arrêté épreuve physique yooyu waa Saint-Louis doon jéem a def ak waa Diofior doon doon jéem a def. kon da nga jàpp ne euh, tey jii euh, ñoom ñii di office du bac dañoo bëgg a forcer mbir mi situation hmm. fi mu toll. waa xam nga li yéem ñëpp mooy ba démb ñu ngi doon yaakaar <laughs> office office du bac def benn communiqué. Hmm. daal di wax ne dàqandi gum na ko une semaine. Hmm. pour mën a may parti syndical beeg gouvernement bi ñu trouver déggoo. ci xaatim bi nga xamante ne réewum Sénégal war na ne respecté wul kàddoom. Mhm. ah ñu nit ñu taxaw dëggal suñu bopp pour xamal Socé Ndiaye ni ko li nga xamante ne xel war na ko mën a nangu mooy nañu fuusandi bac bi fii une semaine loolu dina mën a may tey. secrétaire généraux yi trouvé benn euh, date accord point d'accord ak gouvernement bi euh, ci àjjuma bi ñu wax na ñoom nguur gi dinañ dëggal seen bopp ci li ñu waxante woon ak ñun dina mën a may tamit xale yi am xel bu dal ndax pëccaxoo bi demee na noo xamante ne kenn xamatul yëf yi nu muy nuroo mhm. foofu nag dañuy lancé benn appel di wax Socé Ndiaye ni ko bagu euh, EPS Sénégal waxuma la ren de waaye at ci topp sax su bëggee yëf yi di jaar yoon inspecteur Papa Ndour moomu mu teg foofu def ko superviseur am na ñu ko gën a qualifié ñoo xamante ne mën nañu doxal mbir mi dinaaw bi mu leeree sénégalais yi ne inspecteur Papa Ndour dem na retraite ëpp na ñaari at te ba tey moo toog office bi bac di def lu ko neex nekk buur nekk bummi loolu nag dañ ne day dakk day dakk ndax képp ku dem retraite tey amatoo looy laal ci administration du administrativement du juridiquement mm. di lancer un appel tam ci chef d'établissement yi ñëpp ñu jiite lycée Sénégal yi da ngeen di yëg ne saa bu ngeen yónnee seen i proposition pour seen agent pour wax ni diw mi rafetlu naa liggéeyam jël leen ko pour mu dem bac moom Papa Ndour moomu ma tudd ginnaaw ba muy xoolee ñaka neex ak ñaka naqari ci noonu lay tànnee kan mooy dem kan moo dul dem mm. loolu nag ngañ ne à partir de tey luy jeex lay doon bu dee Socé Ndiaye bëgg na bac EPS yi mu bëgg a organiser fii ci tey ak suba mu jaar yoon. kon daal euh, ci seen i bëgg-bëgg boole ngeen ci ñu jëlee ko fi moom moomu di euh, sëñ Bindour. waaw mais naturellement kooku moom amul amul ma dem te ñëw euh, ñun ay jàngalekatu EPS lañ bu dul man mii ngeen di waxal na ngeen jël seen micro tak tàllal ko beneen jàngalekat EPS bu nekk Sénégal mhm. euh, sëñ bi Ndour dañ koy sant di ko gërëm funkal la kàngaam la ci éducation physique turam kenn mënu ko jënd ci histoire éducation physique u Sénégal mais ci guddi yi ñu toll li muy def ci àq moo ëpp la mu doon defar ci lu baax mhm. loolu nag balaa ñoo yegg ci benn niveau bi nga xamante ne dara dootu ci rafet li ma naan bët bu rusul xam ne dem na te mu bàyyi xale yi nga xamante ne am nañ expertise bi ku ci mel ne Moussa jaata mu ñëw toogaat postam liggéey liggéey bi ndax looloo taxoon ñu teg ko fa te ci guddi yi ñu toll ay loxoom dañ ko daal di tënk ndax jafe-jafe yi nga xamante ne Pape Ndour samp na ko foofu biir office du BAC ak ñi mu àndal. yaa ngi wax sànq ci suñu jokkoo euh, ci kàllaamay nasaraan nga wax ne da ngeen dégg ci seen yenn collègue ne euh, boo mayul dinañu andi yeneeni professeur ñu daal di def épreuve yi à votre waaw mais xam nga loolu moom lu doy waar la si jàpp naa ne vraiment le ministre euh, de l' enseignement supérieur te effectivement dégg ngeen lu mel noonu. non lu am la lu am la dama ni euh, xam nga ndorteelu boycott bi dafa am ci suñu nawle yi nga xamante ne ay président de jury lañ leen tànnoon. Mhm. dañoo dem delloo seen clé. ñenn ñi par conviction syndicale ñenn ñi tout simplement par conviction personnelle ci seen gëm-gëmu bopp. Mhm. ñoom yàpp nañ ne bu Sénégal yëpp taxawee banque seen i yoxo ñoom du ñu def ginnaaw mhm. dañuy daal di delloo seen clé xaar ba jàmm dellu si ci biir jàng beeg jàngale bi. Mhm. foofu nag la ñu gis ne solidarité corporative bu doy waar ñëpp daal di lëkkaloo ne dañuy banque seen i yoxo moom moomu monsieur Ndour daal di ut nag yeneen xale yu mu ut ñu remplacer ñu delloo seen i clé ak ñi nga xamante ne nee nañ demuñu examiner ci baccalauréat bi lu dul dañuy xaarandi. juboo am diggante nguur gi ak syndicat yi ñu ne nag sérieux bi nga xamante ne baccalauréat toll na ni ci biir réew mi xanaa nag jàppuñ ne Socé Ndiaye dina bàyyi nit ku dem retraite toog di salfaañe di yàq di xajamal diplôme bu toll ne baccalauréat te loolu dañuy lancé benn appel ministre de l' enseignement supérieur lancé appel le président de la république ñi ngi seetaan loo xamante ne la muy jur ëllëg dara naru cee rafet. tey lan mooy seen i jafe-jafe. bokk na nag ci suñuy jafe yoo xamante ne ci suñu plan de carrière la laal. may wax ne tey détermination bi jàngalekatu EPS yi am pour bloquer baccalauréat bi bokk na ci deux mille quatre cent cinquante et un maître éducation physique yooyu ma tudd ñooñu rek ñoo nekk ci biir fonction publique ay liggéeykat yoo xamante ne waajaluñ seen plan de carrière ndax buñ fàttalikoo protocole deux mille quatorze ak deux mille dix huit boo demee ci xëpp fukk ak ñeent ñu ngi cay wax ne dañuy jël metre éducation physique yi sotti leen ci corps bu ñuy wax PCMG muy professorat de collège d'enseignement moyen général mhm. corps boobu nag lenn dong moo tere ñu créé ko muy waa fonction publique modifier le décret 77 11 77 pour que ñu mën a jël ñooñu ma tudd sotti leen ci corps boobu may leeral sénégalais yi ñuy déglu ne ci jamono bii may wax maître éducation physique yi B4 la ñu nekk te ci nomenclature bu bees fonction publique hiérarchie B4 amatul nomenclature bu bees bi mi ngi tàmbalee hiérarchie B2 te B2 moo méngoo ak professorat de collège d'enseignement moyen général benn décret rek moo tere ñu daal di jël ñu sotti leen ca foofu nag mu leer ñëpp ne di jàngale ñaar fukki at ak ñett toog di xaar nga sotti ko ci koor bu bees lu ñu nangu te du ñu mës a nangu fenn ñu ñuy defloo ci waat beneen formation ndax fukki at ak ñett yaakaar naa amatul lenn lu état bi warloog moom lu dul sotti ko ci li mu ko digoon te loolu bind na ko xaatim ko ci protocole d'accord yi weer bu weesoo plan de carrière bi euh, lan leneen lañ mën a jàpp euh, justement ci seen wàllu liggéey euh, su pédagogique waaw ci wàllu pédagogie moom école yi diggu dóomu yi li nga xamante ne mën nañ ko seetlu mooy professeur EPS yi waxuma la ñàkk matériel bi ñàkk matériel rek waaye installation yi nekk sax ci biir stade yi dafa vétuste dafa magget yegg na nag ba benn niveau boo xamante ne pour ñu doxal suñu liggéey correctement sax jafe-jafe lay daal di doon rawatina nag bi nga xamante ne at yii ñu génn ñi ngi seetlu ne saa su ne nga dégg ñu ne xale bi def na éducation physique noppi faatu na loolu nekk nag benn responsabilité bu diis bu tegu ci suñ kaw dara ci nag suñu àq dara tamit suñu cër ginnaaw bi mu leeree sénégalais yi ne inspection médicale des élèves moom la ñu pour mu saytu wér-gu-yaramu xale yi te nguur gi joxu leen doole nguur gi jox leen ay matuwaay pour ñu mën a matal seen liggéey. ndax yéen da ngeen di exiger lii di certificat médical. waaw mais certificat médical comme ni ma ko waxee léegi ci tubaab tey boo jëlee livret de bac bu xale yi livret de bac boo mën a jël boo xoolee ci ñaari page yu njëkk yi mais lañ cay wax. day dellu ci wér gu yaramu xale kenn du ko mës a mën a remplir parce que tout simplement euh, école yi nga xamante ne amatuñu tey ay infirmier yu mën a saytu wér gu yaramu xale yi te ñi ñuy accrédité muy waa IEMA ñi ma tudd nii joxuñ leen moyen joxuñ leen ay ay matuwaay pour ñu mën a doxal seen liggéey te kat na leer sénégalais yi ne ci inscription xale yi dafa am wall wuy dem ci IEMA dafa am pàcc boo xamante ne ci inscription xale bu nekk dañ koy dagg pour yóbbu ko inspection médicale des élèves ñu saytu seen wér gu yaram balaa ñuy démarrer cours éducation physique yi mm-hmm. waaye ñun ñëpp gis nañ li xew ci école yi IEMA moom bu ñëwee day xaar ba examen bi def daanaka ñaar ñett semaine bu ñëwee tamit du xool lu dul élève troisième yi ak élève terminale yi te daanaka loolu du visite médicale tappale médicale laa ko tuddee ndax dara leeru leen ne xale boobu ñu ne apt na apt na donc xale bi dem examen yàlla dogal ci ay mbiram faatu daf ko fa ñu ne voilà prof EPS yi dawloo nañ ko daanu na dee na loolu nag dañuy leeral sénégalais yëpp ne benn bi ci suñu responsabilité responsabilité nguuru Sénégal la parce que lépp lu muy def ci jàng beeg jàngale bi moom daf koy daal di naxasal te leer na ñëpp ne ñàkk respecté accords yi weesu rek war na dëggal nit ñi ne nguuru Sénégal moom mel na ne jàng ak jàngale du priorité ci moom. ci wàllum euh, formation ndax yéen tey jii bu comme euh, yeneen euh, corps yi bu ngeen génnee daf leen di permetre ngeen am ay formation yi leen di permetre ngeen gën a yokku seen seen mën-mën. waa xam nga tey boo xoolee professeur éducation physique ak sportive bu Sénégal. Mm. INSEP bokk na ci école bu leen di former. Mm. ñooñu nag bu ñu génnee foofu hiérarchie A1 la ñuy doon. Mm. dañuy méngoo ak huissier méngoo ak avocat méngoo ak yeneen fonctionnaires yi nekk A1. ginnaaw ñooñu boo demee SNEPS bu Thiès ñoom ñooy former les maîtres d'éducation physique maître d'éducation physique nag dootul am ginnaaw bu paree ci formation diplômante bi nga xamante ne mi ngi en cours. Mhm. boo jugee SNEPS bu Thiès da dem ba Saint-Louis fekk fa waa UFR SEPS ñooñu ñooy former les caissiens en éducation physique et sportive. Mhm. ci ñett kër yooyu ma tudd yëpp nag. ñaar ñële bu ñu génnee am nañu plan de carrière waa FENEPS bu Thiès rek ñoo nekk ñoo xamante ne ña ñuy formé amuñu plan de carrière mooy maître éducation physique yi toll ci limu deux mille quatre cent cinquante et un toog di xaar ñu rectifier le décret cent dix sept onze cent dix sept et ñu mën leen caa sotti ginnaaw bi mu wéree ñëpp ne loolu lu ñu xaatimoon la ci xët yu njëkk ci protocole deux mille quatorze ak deux mille dix huit ba ci protocole lu waroon mën a am la ñu ngi doon xaarandi que bu ñu demee négociation ak nguur gi ñu delloo delloosiwaat poñ boobu ndax nekk na poñ bi gën a màgget ci plateforme revendicative yi yëpp ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñeent ci ren maître éducation physique yi ñu ngi toog di xaar ñu jëlee leen hiérarchie B4 yóbbu leen hiérarchie B2 pour ñu mën a am plan de carrière avancé comme seen i nawle ci biir fonction publique. tey nga foog ne lan moo tax mu am disparité ci agent wu état yi. waaw loolu moom dañuy jàpp rek ne manque de volonté la rek nguur gi moom moo moo amul volonté rek def ko. waaw ndax euh, nguur moom am na doole bu tol ne li nga xamante ne ñor na ko bu ci jugee da koy daal di def leer na sénégalais yëpp ne nguur gi lépp li mu bëgg def mu koy def ah waaye jàng ak jàngale nag mel na ne moom nekkagul ci ay priorité waaw comme nag jamono bii moom dañoo lëkkaloo ak euh, secrétaire généraux yi nekk biir g ak G2 ñun nag ay ndaw rek lañ ñooñu jiite lañ ñu wax loolu rek la ñuy doxal moo tax ci guddi yu ñu toll ñu taxaw banque suñu ay yoxo ànd koog famille jàngalekatu Sénégal yëpp pour nag suñu àq ak suñu yelleef suñu dignité ñu delloo suñu ko. est-ce mën nañoo am yaakaar ni G7 saa bu levé di ngeen levé parce yàgg nañ leen dégg même bu dul euh, grève bi nga xam ne moo fi ne. xam nga bu ñu jógee ci bac EPS bi dañuy daal di dégmal brevet sportif bi mooy BFM bi. Mm. loolu defe naa fukki at ak juróom ginnaaw bac bi lay doon. Mm. mais tey mooy dañuy xaarandi ci office du bac na puusandi baccalauréat e a may ci lii nguur gi ne ajjuma dina dëggal boppam nguur gi bu dëggalee boppam ajjuma rek ñu dellu ci classe yi jàngiwaat beneen bi ci def nag mooy ñun tax ñu sax boycotté BTN EPS bi tax tamit dañoo mënatul xaar defe naa ne koo toog di ko xaarloo ñaar fukki at ak ñett foofu doom juddu na fa bu dee jigéen ba sëyi bu dee góor juddu na fa ba takk ab soxna ami doom loolu nag dafa ëpp ci réew mu mel ne Sénégal euh, état bu responsable warul toog sax xaar ay doomam ñoo xamante ne dañoo jóg pour servir réew mi di ñaxtu ñaxtu yu nu mel loolu gàcce la ci nguuru Sénégal gàcce la ci ñu yor fonction publique. sëñ bi Ababacar xalifa euh, Ababacar Ndiaye secretaire national de l' association des enseignants d' éducation physique ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi leen di sant leen gërëm.